Coco Pulp, un soin délicieux à l'huile de coco pour une peau lumineuse, lisse et soyeuse. Wa ana Marichou <laughs> téléchargez l'application Marodi TV pour regarder les meilleures vidéos du Sénégal bisous. Wa nga là lan pot lii fii la de ak yow amul leneen dina génn ci té ñak ñew na kenn du ko nangul pisam mo koy nangul bopam problème bi mom du sa problème sans problème la da ko jar woote téléphone dafa jar yéen ni man ay appel bashir rek mo yaakaar ne man dama koy tromper man xam naa lu baax maa la yar xam naa loo capable ak loo capable lut xanaa kay dama yaakaar Eva ne ci noppam gi rek di yëy nee naa la nga ubbi sa noppi te xool Eva Eva ngi say tànk ba tey rek pexeb Eva rek la mari yeewut Eva sa tànk de waaye lii maa koy réglé ba xam kenn amatu droit nag buy téléphone léegi ah ah mi nag moo exagéré nag mais ki xam ban heure jot téléphone xalaas mat naa bare lu ñuy réglé lay doon masta misalnya nga lek nga ma moo tax moo français nii rek nii soppe nga jóg sangu dégg nga jëm tëdd nelaw tuti tala sa xel gi naa régler problème bi sa bi rek ngay indi hmm. ñun ko bu fay asa loo xam kenn am tudd waa wuy téléphone baa woote ba dëkk lañ nekk ii an sa yaay ba jëlu nga sangu dem sa xel Let me joke. Huh? We have not a shoulder. We can run a babacan. ما انا مرحولة في amul dara luñ fi nëbb li xew yëpp xam nga ko yaa ngi nii gis nga xam nga ne Marichou génn na kër gi dem na ñibbi jaratu ñu siy waxaat. man je veux juste savoir li xewoon keroog. li xewoon keroog kañ. bi ngeen demee Saly. mais Rocky. waaw. jëkkër Sall bi moom luy problème am. yow ma kooku yaa des si waxu kooku. non mais attends man mooy problème moom jabaram mu ngi liggéey di ci di di am xaalisam di ñëw di xam fexe nu gaale mi amee sutura mu ciy contribuer. yow bàyyi ma jëkkër Sall ko xamul boppam. non ah mais sa premier mu ñëw fii moom di ñëw andi bruit. waaw fu mu ko teg. <laughs> ëpp yow sa jabar di liggéey di dégager wu di la dimbali. Hein? mu lu am mu néew mu bari mu koy indi ci kër gi di la suturaal ndax liggéeyoo. <laughs> man de toute façon sax salamu moom moo ma njëkk bett yow imagine Sala ñëw fi di liggéey ci communication bi man ma jël ko juste pour jàppale ko. mënu naa jël ñeneen. en tout cas ma jël ko juste pour jàppale ko mu may def. non jëkkër ji la jëkkër ji moo war a yor. mais mais elle doit hein? pas se laisser faire. daa war a xam ni mag bu yorul gone nga li ko war rek mooy yor. bon xamul loolu waaye bàyyi ah, ko en tout cas. bon de toute façon man sax ñaar ñooñu.

Non ci je bi. je pense que mi ngi troisième rangée si je me trompe. non troisième rangée. troisième rangée ok comme c'est bon. waaw xoolal maa ngi dem añu vite fait daal. allez bon appétit. ok à toi là. ok. ok doy. loolu laa mënul comprendre Marichou war naa nekk ak en plein séjour mu naan day rentrer en contact avec son ex ñu inventé un message WhatsApp ba man ma si jot comme par hasard. téléphone am la nëbb si douche ma fekk ko foofu noonu. waaw calme-toi léegi léegi loolu yëpp bi mu jotee xew moom la la la expliqué. expliqué dinaa fa toog di déglu explication Marichou. da nga ko waroon a déglu nag parce que am na yenn yoo xam ne yenuwul maanaa Pod yow ak Marichou fi ngeen jaar yëpp Marichou lépp li mu def ndax yow dem na bay waaj a xaru ndax yow ki nga xamante ne àdduna wam bi yëpp yow la kooku nan la lay trahiré. ok d'accord trahirum. wala la may nëbb Marichou lan lay nëbbatu. soo ko dégloo di nga ko xam te yow loolu nga nangool def te su fekkee looloo tax nga mer ba génnee ko kër gi yow yaa si ci erreur man nag leen rek laa la mën a conseiller mooy nga dem jëli sa jabar. nag mooy le monde à l'envers Eva nee na ma naa dem jëli Marichou da yomb trop boo gisee seen titre yi nga tegoon dëkk bay xar. donc nii lañ leen di bàyyee. ah man ma xam ne information boo xam ne yaa ngi koy jox ay millions de millions de personnes. Mm-hmm. franchement boo koy génnee war nga ko vérifier. excuse-moi allô Fred. bon ça va écoute oui ma là maa ngi nii ak euh, sa contrat bi ci samay loxo. Mm-hmm. comprendre donc identité wu client beeg lépp mi ci. donc ce qu'on va faire mooy ñu jéem gisante là tout suite chez moi comme ça ma defal la ci copie ouais d'accord. donc attends. ok man fay ñëw Frère que la que contrat finalement pas pour nous dire jël qu'on ko non xaar Je vais d'accord. Oh, hmm. comme nangu woo dem sa kër ba mu pare ba léegi xanaa di nga ñëw kër ga nag pour quelque fan nga wéttali di ko tuuti foofu jàppale ko ci xale bi fii kër cosaan la te xam nga ne mag bu jógee ci kër kër ga day gént yow su ma jógee fii kan moo yor njël li <laughs> bàyyi ma fii rek ma toog. yàlla li may defal yëpp yaa ma koy defal waaye ma fii rek. tukki ñu ñu gérer kër gi sa en plus keroog am na ma doon wax ci dikku loolu sañoon loolu dootul am sa diggante ak moom. bu dee nga kay waxtaan ak moom dikko yaa ko yar sa doom la surtout loolu. dara ba man li ma gis dong moom laa wax jotee maam moom dara dikkoo ba sama doom la ba tey sama doom dara laa ko jotee moom nag kantaa ñëw foofu xam nga tamit ay xale ngeen ñëw fa di leen ak yooyu bàyyi ma ma toog fii du ma sañoon daal nga bàyyi ma toog fii ndax man li li ma war a defal yëpp yaa ma koy defal dëgg yàlla. Hmm. yooyu yëpp d'accord waaye nag fii ni mu nekkee sa kër. te noonu la nekkee sa kër déranger woo kenn yow sa bopp xam nga ne déranger woo kenn xam nga boo fa ñëwee du ñu bëgg sax nga ñibbisi mm-hmm. hmm? euh, en plus saay-saay boobu ma fa fekkoon keroog bëgguma di fi dajawaat ak moom muy ñaaw mm-hmm. xam naa sama bopp wérul dof la te man xam naa ne gis nga keroog li fi xew mm-hmm. yàllaa ci def jàmm rek. seytaan dafa te ma leer na bu ma ko fi fekkaatee danañu àgg fu danañu àgg fu gën a raw foofu. balaa loolu di ci am na yow nga ñëw kër ga nga toog fa bu ko defee man lu may régler ma régler ko ak moom mais ailleurs mais pas ici. Hmm. Hmm. voilà. man sama jëkkër jooju sax tax na ma bëgg wax dëgg yàlla waaye ñëw. moom sama jëkkër war naa ñëw di ko ndax nii. sa sët bu góor kay. waaw loolu dëgg la fi nga jaar ak sabi kay nga jaar fa ak moom rek. léegi nga Nah, hmm? bàyyi ma xalaat ba xam daal ma si yii bu ma demee ñu ah moom daal pour l' instant daal calme na. Hmm? calme na de xaw ma na. <laughs> a dina weex. <laughs> André? Ah. Ça va bien Vous allez bien Ça va. je vous en prie. Inam Ok, monsieur Ndao. comme convenu, donc euh, maintenant copie contrat bi mon donc euh, avec l'identité du client yëpp mu ngi ci donc mon gars, quoi. une autre chose mooy que ngeen jàpp ci rek ba bañ a am benn fuite benn rokki wala kenn di ko quoi. non non t'en fais pas pour ok ok merci donc attendez par rapport ak enregistrement donc comment ça va passer. supprimer na ko ci kanam moom gis. façon bi amul benn intérêt pour garder quoi. donc c'est bon tant mieux. c'est bon. merci. merci beaucoup. Attends, juste une dernière chose. si que yow. yu bëri c'est la dernière fois nga xam ne ngay doxante wu ñu kii André. Marichou maa ngi ak fi ñu jaar yëpp ak li ñu dundee yëpp Marichou war naa mën a am coono pour gis la. Bachir dangaa war a xam ne li woon démb nekkatul tey léegi dama am jëkkër te aw ma benn obligation pour ñu gisante ak yow. Marichou yaa ma xool ci bët tey di ma wax loolu xanaa dina ma gudd tànk yaa fàtte ko li nga ma wax. بشير من يولى خم يولى مين te naanu ma yàlla ya, nekk ak beneen góor bu dul yow ya. mais ya, garaawul yow xam nga la moo taxoon ma bëgg a génn lépp sama génn bi ma nekk ci jël bi lépp pour gis sama doom ma génn amoo dara loo may wax lu dul ne ma da nga avorté sama doom sans pour autant nga aviser ma waxuma ci dara. Bachir Bachir boobu xale bu ndaw laa woon Bachir xaw ma woon dara nga dugg prison te xaw ma woon kañ ngay génn Bachir s'il te plaît xamal ne loolu moom moo ma jàpp topp ma ba léegi nii ba dama am ay complications sax pour am doom Bachir. Marichou jëlee juste loolu mënoo ko def di ci jëlee sëy bu neex. li dund yëpp ndax yow la yaa ngi fàttaliku keroog bi ñuy nekk ci oto bi ma ak yow nga yore volant bi bi ñu mbëkkee bi kan waroon tëdd Marichou kan ma ñëw tëdd sa place dund lu métti ci jeel bi li fa dund duma ko wax kenn dund fa lu tar sacrifier sama life yëpp ndax yow ndax mbëggeel ma amoon man ak ma sacrifier ndax au moment où j'avais encore beaucoup plus besoin de toi Marichou nga abandonné ma yaakaar ne dama fay dee. Bachir c'est bon c'est bon dégg naa la bu baax Bachir. nga yaakaar ne di ci jëlee loolu nay. Bachir s'il te plaît ma àq dëgg la maa la tooñ nangu naa ko baal ma àq dama la koy ñaan Bachir du sama wareef. Bachir instant bi li may dund metti na trop maa ngi nii say appel ak say message moo tax sama borom kër dàq ma ci këram Bachir Bachir lenn rek laa lay ñaan. plant bi nga déposé contre pot nga dindi ko <laughs> ndax té bu délu delluwaatee encore prison lu bax ci mom Bachir. ma ngi door gëm na changer nga nak Marichou kon yow plant bobu suma ko déposé woon do ñew sama kër. mais plainte boobu su ma fi jógee dinaa ko dindi. gën la gore waaye yàlla bu nga jikk jëlul jàmm sante ñëwal rek du toog tay li ñuy wax bari na torop ma bu baax xam nga ni yaram bi ak sa yaramu màgget bi bokkul de du benn ah. hmm? xale bu ndaw tut xees jox la lépp nga ni yow doo bàyyi màgget boobu kañ nga koy dégager yow si yaa ngi de hmm, kon xam nga ni màgget la hmm. kon baax na yow dundak dee kaay toog fii doo dem loo wax d'accord oui ok yow man dama laa bëgg ci sama xol te dama laa bëgg ba xaajatoo sama xol wéy naa laa parole yaa ngi ci sama xol gis naa laa ba ma xool ci sama xol eh don't cry

vous savez que ça allait arriver ma papa la nga doon sama sax. waaw yëpp mag yow. non soo nekk saa ak sa yëg yëpp. non lu yomb si àdduna sax baaxul. gis nga loo xeex pour am ko. koy téye ak sa ñaari la. lu yomb baaxul. mais yow sax. temps yëpp naa ne yaa ngi def ay malaise est-ce que duñ dem hôpital comme ça nga xool sa état de moo gën a wax c'est plus sûr. Sénégal xaawul wax naa la loolu ça va. bon gaawul mooy waxu la. t'inquiète pas. non c'est dem comme ça doo dem sax maa ngi ñëwee ànd en fait. c'est sûr. non ma dem. waaw. xanaa bu inquiété wu su fekkee du dara kay garaawul mais le mieux mooy maa ñu dem comme ça nga xool sa état de santé c'est plus sûr. c'est bon d'accord ma dieu one night without you instant yi maak yow ñu ngi dund présentement nii nice Nabou temps yëpp gisoo ma bàyyi sama jabar yow nekk ak yow parce que dama la bëgg Nabou man mënuma dund sans yow. gis naa effort yi ngeen def yëpp mais si xam nga ni lii mënul continuer que dafa bëgg Nabou loolu mooy géej bi am na ndox loolu jarul sax wax. mais dama bëgg nga préféré ma man. dama bëgg qu'on s'appartient loolu laa bëgg xam nga ne lii mënul continuer neex mais mënul continuer mère bi nga war a dégager mu génn ci sa vie. dina continuer. Hmm. mais da def nang instant yi maag yow ñu ngi dund présentement nice relax au calme. dañu hmm. enjoy suñu life. lan moo fi jar gaawant. yaa ngi tëye sama doom. Hmm? कंपनी धारा यहाँ का एंजॉय रिलैक्स मार गया ढूंढो और कर Bro, don't sound as a child. Sono na si wahti na. Wano polo. Jehna. Ma jam. <laughs> Eh, sama da. Ki da me ni golla de sama ko pa pad la ko tudde la. Ki di ki jigen la sama yaay la koy tudde. Koy tudde sama dom sa. Waaw. Sa man na tudde sama dom. Waaw. Mais sama dom la aussi. saa nga xam ne làmmiñ bi comme laa la waaye bàyyi ma waaye nga xam ne saa dama ko tuddee sama doom. sama yaay lañ ko tuddee yëpp nga sama yaay torop jamais de la vie jamais au plus grand jamais saa yaay duma ko tuddee sama doom. dina leer non loolu moom xalal beneen affaire la. na naa la wàññi. su bëggee moment yi continuer nag. lenn rek laa la ñaan nag may ma jàmm. mais yow man maay sa jàmm boo nekkee ak man nga bàyyi ñëpp di nga am jàmm. mais dee ko jëfee nag di nga ko jëfee sûr. <laughs> <laughs> sama macaroni bi dalaa mujjee ne xanaa. waaye man damay tooñ rek macaroni yi ñoo ma saf. Mm. Mm. <laughs> li ma xas kaddu si baaxoo de. xoolal bul fàttaliku yooyu bàyyi yooyu. kon noppi lan nga bëgg lekk. heure oh, bi bëgguma lekk dara dama tàng je chaud sangu rek laa sangu. waaw nañ dem sangu. mais bien sûr. mun na man ngay waxal de. kenn du ma ko wax déjà sax li mu bëgg xam mooy yow yaay kan ak sama yaay sama yaay fan la nekk. Eh, yow booy wax ak mag ni ngay ni ngay waxee sa yaay xaw ma fu mu nekk te Seydou Diop bu nekk woon sa baay man mii may doon sa baay. père rus naa la de i non rus naa la. bankal sa baaraam mais réew nga ah yow nii lañ la yara yow bu yeboo. mais père Seydou Diop ba may dégg turam ba léegi xaw mooy sama papa xaw mooy kan mais sama vie bi yëpp lañ chamboulé nekkatuma si jàmm ba ma koy dégg ba léegi lu ma bëgg xam lan mooy problème bi lan moo xew. Saya wax na lu nga jàppal ni fu mu mën a ne mu ngi ci jàmm xanaa lii rôle la bindal su lee boole ak man am na ay raisons yu tax mu def ko mais li mu la wax c'est clair seconde famille.

so toogee alal di ñoo ñoo koy jël héritage boobu yow ci nga bok eh si tu tiens à aider ta maman dafal lim la wax sama yaay jaral na ma lepp alors demal nga retrouver ses frères jël li nga mo d'ailleurs na la mettre en contact ami ñoom moom moko may wax non ku rew ki mom man mënuma wax ak mom mais au moins pot dal na tey na mun naa wax ak moom je ferai tout pour créer une rencontre yow moom ak man nga def li la saay wax. mais balaa may def loolu sama yaay foog ma xam fan la nekk ak ci lan la nekk. loolu na t'en fais pas dinaa la aider je ferai tout pour que tu retrouves ta maman. ok waaye nag naa la xamal leen ñi ngay waxee ba jàkkaarloog mag danga koy wàññi. yaa ngi dégg baax li ma la wax ok soo koy reere nag léegi nga fande lucky day my life nekkul fi waaw kii fan la war a dem heure bi hop ñu nekkee ba léegi yaa ngi gore ak man duma nangu nga gën maa gore xam naa ni lii ma lay bind nii dina la bett trop waaye nag ma baal ndax duma la mën a jox benn explication lenn rek laa la mën a wax mérité nga beneen jigéen bu dul man siix dem naa j'espère que dunda bu moo fa jaar wala sama yaay là, décroche Maggy man sa jëkkër laa maay sa kilifa lenn rek laa lay wax lenn laa lay yëgal ak lu mu munti doon ñibbisi waatal ci biir kër gi ñu waxtaan si mag amoo droit quitter ma tu n'as pas le droit de me laisser tu n'as pas droit de me quitter sa jëkkër ñibbisi waatal si biir kër gi tordoon nga ñibbisi si biir kër gi